gis ne ñëpp naan grand meeting d'adhésion maanaam ñëw bokk ci biir ku wax loolu déglu leen maa ngi ñëw sous la présidence d'honneur de son excellence monsieur Macky Sall président de l'APR ci teewaayu une forte délégation boo xam ni APR ñoo leen yónni muy délégation secrétariat exécutif national bu APR section locale APR de Marina Dakar ñoo leen di woo ci grand meeting d'adhésion à l'APR de Ngagne Diallo du mouvement And Suxali Kayor le samedi 30 décembre 2023 dans la commune de Marina Dakar ca Kel dëkk bu sell boobu à partir de 16h Ngagne di ingénieur juddoo ca Kel màggee ca Kel bokk ci département bu Tivaouane di coordonnateur mouvement ànd soqali Kajoor ak coordonnateur du cadre des jeunes du département de Tivaouane CJDT moo leen di woo ci grand meeting d'adhésion ci biir parti APR nee nag day soutenir monsieur le président Macky Sall soutenir son candidat Amadou Ba le 30 décembre ca Kel dans la commune de Marina Dakhar Dakar ne ko ñëwal ñun yow la ñu doon xaar ku ko jiite ñu ne Aymérou Gningue maire de la commune de Marina Dakar ne dina ànd ndox une forte délégation bu secrétariat exécutif national bu APR ñëw fekkee si ko invité d'honneur ba monsieur le premier ministre Amadou Ba candidat de la grande coalition no Bokk Yaakaar patron et ami de Ngagne Diallo action dans le Kayor Ngagne Diallo ma nga ca éducation ma nga ca santé ma nga ca sport ma nga ca loisir ma nga ca ma nga ca daara ya ma nga ca santé ya moo mën ci dispensaire yi moo mën ci nawetaan yi moo mën ci di xarafal xale yi di dimbali jigéen ñi ci formation di jàppale étudiants yi di jàppale jeunes yi ci ay formation mu ne nag day lancer appel à l'endroit de la jeunesse du département et de la région de Thiès ne waa commune bu Marina daqaar ci góor ñi ak jigéen ñi jug leen gunge seen doom Ngagne Diallo kenn du moom réew mee ko soxla te moo mën ci réew mi moo mën ci dimbali moo mën ci social moo mën ci jëmale Marina Dakar kanam ci wetu ay miiru ñu ngi